Yo, what's up? What's up? What's up, guys? Ah, là, c'est- là, c'est un épisode bonus, là. puis Je je sais pas. Je sais même pas si je vais le laisser parce que. Juste ça me fait rire, là. Ça me- ça me fait rire. On- Je parlais avec Sorna, on parlait du ramadan, puis. On faisait des parallèles avec euh, des choses qui sont d'actualité, puis. Ça me fait rire. Je dis, je vais mettre ça en épisode bonus. On sait pas. Peut-être je vais l'enlever. Pour le moment, profitez de l'épisode et ouais. Juste, on, on vient bientôt avec d'autres épisodes. Là, il y a d'autres épisodes qui sont comme en montage qui vont venir bientôt. Merci d'écouter et mettre, lâcher 5 étoiles, dites que je suis bon en commentaire. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Merci. Bisous.
Mais quoi que d'ailleurs, man, finalement,
Lan?
quoi que même d'ailleurs.
Papi, wannan yar murmurar kala da kashe mai gai pose ko sa ko gidan da ya
انا كان بالي قلت لك دايرك لو بلا ما دايرك لو واجد اجي اللي جواب اجي اي دوبل انديشن بما يسمع عمو دوبل انديشن Lola جيب man amna.
جيب بوكوج Rajin an. Dum dum da shi jo. Lola ka dabna election.
ها دوبل انديشن عم نجبوز فاضي بزين نجرب نوقعها
Wa.
Nó có textión quả, nhìn bao nhiêu nhiều rồi, mình đánh có textión.
But but ban heru yon gayo.
Hả?
A heru yon na ne ta kor gayo.
Nhưng hỏi là nó textión, ấy đâu mà- ấy đâu mà đây textión, đánh cho nó ăn đi rồi. Nhưng đã không ăn đi rồi, thì bóc đi coi, mình nhiều rồi không? Mình- mình push có cái nhiều về thì ăn nhấp. Rồi ấy kia, ấy phải là nào textión chứ không á. Được quá mà. Nhiều quá, có nên nhiều quá là từ trăm, là từ điên, là bao nhiêu, nhiều đó có quá, từ trăm. Ừ. Dạ. Thế là Cái làm gì như vậy, mình như con kia nào thì kia là chả, nhưng bóc lên. Ở đây như gì? Mình bày nó quá.
Ya ma na nyan ba nyuwa ba saka nam.
nhưng mà cái bao nhiêu nó cái tầm thì mình nghe cái câu cái là có An đi bộ an an an dak ñoom ba ñu gunge seen koor ba pare ñu à soog a cũng woor.
không được xem về bắt bắt bắt bắt cái gì mà áo xong kiểu à phải như sao có Assumption. Yow tamit.
phải như sao có nó thế này nên là bạn tôi còn bây giờ lệ như sao là bắt tôi bắt cản được đấy không như lo muốn cái gì đang nghe ta đi nghe nhập ra lo như ta nó bên biết vào hàng anh nó nhập qua tôi sẽ jam Nghe con cái đấy sao con cái mình nó đã đã đã xì mò không ngay giờ như nó xem vào sao mình nghe cái rồi bao nhiêu O primeiro dia lá, que coisa, ele dá assim, mano. Mas já por logo. Só que aí por aquela boa, não. Então, não dá assim, não tem por aquela forma. Tá, tá, deixa. Eu ia no desligar, tem que um fit. Não tô com ele, ele fez. Eu não ganho na coisa que ele disse. Aí ele veio, que ele vai na fé.
Pardon. Weer moom ala kulli al dina feeñ.
É coisa agora. Ele fez, eu ganho tic-tac aí, juro, de que. Não tava doando com a ele. Vou lembrar de mal.
Eh,
Não, mas bater dinheiro, mas dobro dinheiro lá, eu dei.
ñoom Mohamed Sax ñaar.
Dobro dinheiro lá, eu. Todo vraiment, mais dialogue. Pô, minu- minu gunya wa ya, vraiment. Sinon, moi, moi, moi, de Bayern, je vais, tu vois, je vais, je vais, je vais, je vais déloger le, le- l'imam au Grand Mosquée.
Pardon.
L'imam au Grand Mosquée, je vais le déloger, moi, moi, de Bayern, je vais le déloger. L'imam de la Mais Grande incha Mosquée, allah. yaa ñaax ni.
je vais le je vais le déloger. Je c'est une responsabilité.
yow da nga suuf waaye kii yàlla la nga suuf.
Ah, mais en tout cas, il y a comme, il va à Douma,
Hmm.
Gaya man lool ci affaire koor gi waaye.
loolu la
Lii dialogue bi. Ñu waxtaan ak jullit yi.
gars yi wut consensus xool ba jour Better na daal koor gi better na ba pare waaw. Kii ma ni kenn lee dara leer ñu si diine ba fi ñu toll nii. On peut waaw loolu pas moo tax ñu passer aj koor gi mënuñoo dem ci koor ak ak condition yi dans les conditions mënuñoo dem ci koor. Mënu ne mënu ne.
te Ci ëllëg daam ma ne duwul suba su- suba su ma yeewoo lii laay yeewoo ak maman duwul diine dafa am. Mënuñoo waaw dem ci koor dowul diine am na de Mhm.
mënuñoo dem ci koor ak condition yi.
waaw koor Jàmm gi loolu daal mënu leeru ci Non, le, because le processus, Ramad- Ram- le processus du Ramadan est corrompu.
corrompu genre dañuy abrogé kii bi Dañu abrogé processus bi defaat kii defaat dialogue xam nga ñu waxtaan naa ko ban jour la ñuy woor mais bii moom mënatuñu woor mënatul ne.
daanu jour bu arrangé ñëpp daal Mhm, mhm.
woo mënatul Guy ne Marius mënatul woo Guy Marius teg ko mu wax ak ñun xam nga mais bu dee day retiré candidature am wala je sais pas mu jéem a xool nu mu def daal.
Mm.
mais mën mën mënuñoo wooree nii ci condition yi nii vraiment. Ramadan d'accord ak sécurité bu ñu ko bëggee.
d'accord na bàyyi mënul bàyyi demee noonu.
bàyyi ramadan bi ci jàmm quoi bàyyi bàyyi waaw diina nañ ko ji bàyyi ci ci jàmm jàmm waaw nañ bàyyi diine ci jàmm mais koor gi ñu bëgg a saafaraxee ba ko woor mu jeex non nañ ko teg si yoon bët ñu woor mais na tegu si yoon
waaw man d'accord naa ak jox waaw si si si si si si les détenus religieux leen libéré nga xam ne diine tënk na leen diine tënk na leen maanaam libéré sinon duñu woor
ñu ne ñu jiñ leen ko ndax diina
buñ leen jéemul duñu woor non man koor gi dañ ko waxtaan koor gi dañ koy waxtaanee te ko si temps booy vraiment loolu nag yow yow kanam yow fu mu am yow loolu ban fan la am fan ban diine chrétien amuñu loolu ay double diine amu fa ñu bëgg am double diine di woor lu may la génn wax lu leer génn papier bi wane ni moom génn na ci diine ba pare fa mu ne woon après ñu xool ban ñu def dialogue waxtaan ak pri- waxtaan ak ki ñu jiite ñu jullit ñi dialogue dem toog ak moom waxtaan xam nga wax ñoom Cheikh Diom Mbaye ñu ñëw waaye affaire yooyu xam nga ñu kii waxtaan quoi festival sala ñu waaw dañu ñëw benn festival salaam yi xam nga gars yi ñoo way xaw a yëngal ñu tuuti mais pas festival salaam avant koor quoi gars yi way ñu toog waxtaan ne koor gi waaw comme processus le processus di Ramadan et Colombie léegi nañ xool mu ngi koy taxawalee quoi mu ngi koy taxawal teg ko si ta yoon rek comme ni ma la ko waxee ah ñun moom vraiment quoi on aime bien
mais daal mais bëgguñoo bien na woor ci tegu si condition yoon mais conditions yii nii vraiment waaw mënuñ see woor quoi parce que il en va de la sûreté de l'État de l'État islamique de de kii sûreté de la religion xam nga loolu saa xëy ko gi nii imposé ñu ko ñu woon nii après waaw mu nekk si ginnaaw weer bi nañu génn nañu wax ak ñun
ñoo ñoo ñoo gérer weer bi nañu nekk si ginnaaw weer bi. ay ay famille yoo xam ne dañuy dajaloo la neuf di seentu weer waaw waaw waaw jàppalante dañuy dajaloo neuf di seentu weer ñun ay lobby lañ ñun waaw ñëpp waaw ñun dëkk ñun dëkk bi lañ dëkk waaw lan lañ tuddati sax ñoom ñoom ñoom tontoo si
xaw ma jàppalante xaw ma jàppoo xaw ma entente jàppoo xaw ma waaw entente jàppoo ant ñu la entente jàppoo antaat dañuy daje jàppoo lobby la dañuy daje pour seentu weer bi weer bi sàkkaaye ñu koor ne gi mais duñ ko nangu
Hmm.
duñ ko nangu loolu ñoom kii la ñoom Karim Wade la ñun duñ duñ nangu loolu ñun duñ ko laal loolu léegi day feeñ day feeñ ci kii tout le temps parce que weer bu feeñ ñu génne ko nañu weer ay ñu ñu leer ay preuve
Hmm.
après ñu soog a xool nu ñuy def boobu xam nga fii ak juin juillet jàpp août septembre yëpp octobre yooyu ñu soog a woor Hmm.
ñu soog a jàpp bu ñu noom wala boobu waa ko ñu jàpp bis boo xam ci la ñuy woor soog a ñëw rek koor koor koor koor jot na waaw koor koor affaire woor leen mu jeex
Realmente. né?
Ah, também. Olha, você deu o guardinha do pó.
Não, não.
Eu lado, mas já me não chega aqui. Eu era malo.
Não é gozela.
Já me Give me chega do- essa essa do decisão aí.
Give me double dinner before you watch it.
Dime lá, o mom lá, malo, mom tá no lado, então dime do.
When the problem be answered.
Mom lá, Problem.
mom lá. Mas guardem, os guardem, mom lá. Malo.
Any any run word in it.
Verdade, manda me dizer, mano, meu olho, manda me dizer na água. Eu não edi na porra na hora de de lá que eu vou fazer.
The time when you you the not eh ijabla bugger you can have it.
Dinga de julho julho to. Dinga de kam ni ko gangi ñew. Ni julho te julho te lu naan dama bëgg hijab di tek. Nañ leen ay joobu diine la ñor. Yoy yow ñepp yam. Bu ko gi ñe ñu jëm rumanda ak seen bopp naan waa xam nga man hijab la bëgg. Waa qu'est-ce que c'est possible de plier al fajr. Ni ki di tek. Duñu laal loolu. Ni la loolu
Isunda.
waaye What the the bad.
ko Isunda ci de.
yoon non mais mais Credo.
mais duñ ko laal ku ko bëgg a man ku ku ku bëgg a teg ku la ku ko seetaan man du ma ko seetaan
Da da suñ da diine bi ko na.
suñ baxam lañ si teg ñu booy foo ñu gë- ñu dekkoon sare ba daal loolu ñoo gën a gore
Mhm.
Hmm.
Aliun war ñoo gën a gore.
Alioune Mbacke Ndiaye Alioune nag borom du paas bu ko neexoon xoolal bu ko neexoon yóbbu baax mbuuru def ko jaasi la wu def ci Bak ñaari bopp
bak bugger.
xeexal diine bu ko neexoon bu ko neexoon bu ko neexoon de baax gado saka place Bak yooyu gëdd.
yëpp mais def ko Maa la jaasi wu def lool.
ci jël jaasi bi képp ko def ci ñaari bopp yóbbu ko pour lan Doon xeexal xaaf diine réew. Doon ñun ñu xaaf.
toog ñu ne ñun ñu toog ñu ne ñun duñu lijjante processus de ramadan bu kolomtu ñun ñooy kan si diine ñun loolu lañ defal diine quand même Yow yow daal loolu nga bëgg defal diine yow.
non man laa bëgg a defal diine bàyyi ko fi après du ma demee ba jógee fi sama njaboot bu ñu jiyee ñu ne leen seen maam de waaw lu ma gàtt gàtt gàtt gàtt am na moo koor moo gu la ma reporté woon joowoon ma xi- koor gi am na koor gu la ma joowoon ma lijjanti ko moo reporté ñu woon tigi koor gi waaw non boo defoo woon koor gi sax bu ko waxee day mën nañ ko interpréter wax lu ñaaw xam nga jiw mais da nga naan leen am na koor gu la ma joowoon ma lijjanti ko nan nga koy waxee wóodin gi dafa am solo quoi xam nga wo- woote jalo ma ñëpp dégg ko Mhm. woote jàllal ba ñëpp dégg ko du ñëpp toog
maa la ñu wax loolu fixé datu koor bi waxtaan rek nga ak dafa dafa jubóo waxaa bés yi dañ la nañ la déglu mais wax waaw wala waxaa bis yi di nga déglu mais koor mu amul bu ñu nee leen koor amul maanaam ci jiite ñi jiite diine bu ñu taxee ne koor amul waxaa bis yi dinañ dinañ ñëw jàmm par force
ah voilà jarog bi parce que du ñëpp a dem de
waaw mu ngi noonu jaww ji moom loo ko bañ bañ bañ ñu naan loo bañ a ree bañ a ree buñ ko bëjee say tuñ nga siit
Hmm.
waaw jaww ji loo ko bañ bañ bañ bañ vraiment kii da dialogue s'impose ñu teg yi weer bi ñu dé- dé- téye suñu weer denc ko ne weer bi feeñul dañuy waxtaan ba pare yooyu ay tee yooyu ay tee weer bi mais ah weer bi suñu weer ñu ngi julli si weer bi suñu weer la weer bi weer bi du weeru ki na jee du weeru ñoom bees ñoom bees seen weer suba lay jeex
Hmm, waaw ñu te dox ñoom moom suñu ño- ñoom moom suñu weer bi ñu ñeexee téye ko mais suñu weer feeñul dañuy waxtaan bu jubóo di jënt guy mii fu mu jógee ak lan la bëgg di suñu diine bi guy de double diine la am waaw mais ah, mais ce que la- dafa la répété te la lutte libère
focus
yaay ñun moom dañ ko koor gi annulé wuñ ko duñu noppi duñu wax saa ñu yeewoo dinañ génn fu ne lañ ko di ko wax wax ak ñu ñu war a waxal
Hmm, waaw soutien rek lañ naa ko soxla bëgguñu soutien rek lañ bëgg
dinaa wax ak samay ñooñ waaw waxal ak ñoom waxal ak ñoom yow xam naa ne yéen laa yow yow fi nga bokk noonu yéen yéen a gën a nettee convaincre parce que yéen xam nga ay non gens man ibaadu moom yooyu dina ngeen
dinaa wax ak ñi ma àndal ñu àndandoo ñëw ci dialogue bi dañ leen déglu waaye waxuñu leen ne que li ngeen wax dinañ ko def mais dialogue bi dañoo bëgg ñu ñu wut date dans les plus brefs délais
lépp lijjanti ko dans les plus brefs délais te bu lépp lijjanti ko sax nu mu gaaw gaaw gaaw maanaam mënul mënul nekk avant juin mënul ne hivernage bi ñu koy def hivernage bi dañ ciy woor
mais yow yaa ngi yaa ngi xalaat tàngaay bi aussi dañuy woor si hivernage bi yow xalaatuñ ko duñ ko def
soo waaw wut hivernage hivernage bi tàngaay bi waaw tàngaay bi di ñëw du yëpp kon da nga xam ne dañu bàyyi hivernage bi jaar ba tàngaay bi jeex ba ñu moo xaw a sedd
ñoom foofu day la ñu mën sedd a am moom date
sedd bu moom xawee sedd janvier la tuuti ko bu bu pee xawee dugg daal ñu jàpp date bu baax date boo xam ne année bi ñëpp ñu woo jàmm ak salaam loolu Sénégal kenn bopp la loolu deux loolu deux mille vingt cinq lay doon kon deux mille vingt quatre bi kenn naru cee woo Sénégal benn bopp la loolu yëpp yi nga li ngay wax ni yëpp ay wax la yoo xam ne jarul nga koy fësal di di di muy jëm kaw sax di yàq xel nit ñi
Hmm,
bu jëmee kaw rek xel ñaaw
hmm. kon mii da nga li ma wax nar a yàq nii.
li ma lay wax daal wax naa la ko man vraiment te du yow sax laa war a waxal
ah man de maa ngi woo samay waay samay ñooñ Hmm. li ma la waxal man vraiment li ma war a waxal ñu may dinañ ma dégg
góor yàlla yi ngay waxal te ñu ngi lay dégg.
li ma la waxal dinañ ma dégg te bu ma déggee ñoom dañ xam ne li may wax ni man du ay waxul naxa sa kanam quoi du tegu la
ay mel tegu ni la du
journal waxagul télévisé Walf.
waxagul daanu ci saret xam nga ay mel ni kuy Tegu la.
présenté journal télévisé Walf de.
ah genre waaw wax yi loolu la la ñu ah kon yow nax loolu sax la gis yow
ay waxu daal ci saret waaye loolu kon yow loolu nga gis mais ah ma leen wax de wax naa leen ko koor gi moom mënul am non mënul am mënul ne mënul ne
nga ah naan kay daal loolu la journal ñu télé lay souvenir am na saison am yow am na saison yoo xam ni huitième de finale joué guñu ko suñu bëgg ñu sax saxee championnat yi pour woor
une petite saison.
huitième de yooyu finale daal football guñu ko wala semaine bi huitième dañuy quart de la finale demi finale finale
semaine prochaine la gars yi di tëj saison de daal mel ni.
non non man am na saison yu mën a tëju de mais am na saison yoo xam ne mënaguñoo tëju léegi vraiment les conditions ne sont pas réunies pour ñu woor daal loolu daal mën naa leen ko wax après nag yow loola neex jàppal
ok moom waxaa bis yi dañuy woor.
ah voilà.
loolu seen seen problème la boo xam ne boo xam ne xam ngeen ne da ngeen di ketoo ah wooru leen ndax woor ndax koor gi ñun décidé wuñ ko le moment d'ensemble bi décidé wuñ dañu woor booy wooy seen dañ wooru bopp ngeen nekk woor ni jeune intermittent.
booy jeune intermittent ngeen nekk noonu mais xam leen ni suñu yónnee wuñ seen koor donc ñii nag xam nañ ni ay ustaas xam nañ ni mbooloo ko tax a jóg boole
Hmm.
te la masse des musulmans bu ñu d'accordul maanaam loo def yow loolu maanaam innovation lay doon dina damay bañ ko yow yow yow yow lan mooy dina innovation damay yow li bañ tax mu dina damay bañ innovation.
jullit yi taxaw ne wóor ñu nga ne yow da ngay wóor du innovation defoo lu ñu mënul am yu yëpp d'accord nga ne d'accord innové nga
Hmm.
en tout cas oui, moom daal Euh, c'est une bouteille que je jette à la mer après bon
bouteille bi de du ñëwaat kenn du ko bon fori.
bouteille bi non comprendra qui pourra ouais. entendra qui sera capable ah bouteille bi bouteille bi day sol ndox kuule.
parce que bu ñu insister moom ba la gis jot incha allah tey waxtaan nañu ku woor complice nga
te ku complice neutre it seen neutre bëgg.
la ku ku fi jaay neutre ba ne da ngay woor
mu ne neutre la.
ku jaay neutre ba ne da ngay woor complice nga
naa ci fekk.
neutre naaf ci neutre naafeq nga li wax ji dañ koy wax mu dañ koy wax nii ñu ne ñu ngi di neutre neutre la di kii xam nañu leen
moom damay woor moom.
façon damay xam nañu la xam
Hmm.
nañ la xam nañ ci miinal sa ceeb boo wooyee du ñu bett.
ka way nee na sama jabar yi wan wan wan ñu bett yéen xam nañ ne xam nañ seen diine taw muy dox ngeen bokk yéen.
ka way nee na sama jabar ah ah. danga bëgg ma activé la nga def ma comme ni ñu def nga nga kii ma nga porté ma plainte yóbbu ma kii ne ma indil document bi loolu nga bëgg. boo ko defee du ma du ma wax du ma wax.
indil duma wax duma wax duma aaya wax ko yeen jàll ngeen bëgg man duma acci duma duma duma joxe duma fi joxe acci duma fi kii duma def affirmation duma doon ak sa téléphone duma ko laal duma def yooyu
saa ci kii wi ko
duma def yooyu jàllaay bañ jàllaay bi ay yow nii am na bëgg ñu changement ku indi changement ni tuumaal yow li denjel amul jël la sharia mooy daw sa kaw waa ji dégg nga te jeel xam nga yow jeel dañuy tëj sa yaa dañuy tëj sa kaw dëgg sa cër ñëpp sa bakkan duma ko def
sharia lii wi ko wi ko soo ko jëlee sa loxo la ciy dagg
dund gu ma dara si àdduna bi.
te ay tii nga da nga soxla say loxo waaw naa fi yaa kàcc kàcc loolu dañ koy def
doole noonu doxal leen rek doxal leen. mais en tout cas on suppose quoi.
kan baax na opposé bo
waxtaan rek waxtaan rek maa ndékki. ah bon dajaloo di ndékki national.
kii ma au leen au au matin ni onze ñu dem marché bu rëy dem tànn bi imaginer ci topp dafay niveau nu mburu ñëpp ndékki wala suuf génn dox ñibbi suñu kër ba kenn doo ñu la koy mas rek ñu xool. jabaatewul daal.
imaginer premier jour koor bi ñëpp na dañuy woote ndékki na dina la jabaatewul daal trois minutes la ñuy daje. génn ay mburu pain ordinaire ba ngeen sox du ñëw pain ordinaire la ñëw ñu nambe ko ba mu saf safaa léegi ndékki ñu ñëpp fay jug dem ngeen bu ngeen génn yéen nag waxaa bis yi dóor la ñu lakk di ma seen léegi kon dañu xool muy dem yabalee ñëw voilà quoi c'est ça le message man bon je vais aussi am occupation comme koo gi ñëwagul moom nañ nekk mbir àdduna ba si kanam
tëj sa soxla yi ci suñu am des occupations waa xam nga environnement yi xam nga foo ñu jëm foo ñu liggéey ci environnement yi parce que dafay bert comme fi ñu toll nii dara leeru da ngay woo rek ñu tuwal a mat loolu fubal waaw dellu ci entraînement rek liggéey rek liggéey rek a wóor ah jaajëf ah
nekk jaam